mooy ci maa ngi dégg ñuy wax euh, ku mel ne Sonko par exemple mi ngi am ay fonds yoo xam ne mi ngi jóge extérieur di ñëw ci moom loolu maa ngi ci alerter gouvernement bi bu baax a baax di ci alerter euh, population Sénégal ñu def ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax ndaxte euh, li ma ci maanaam li nga xamante ne bii ne mooy mooy origine boobu dañu waroon a jëm a jàngat ndax loo loo jot lu nekk war ngaa xam xam lii fan la jógee ak condition yi nga xam ne moo tax ñu mën la jox ndax gis nañ fi yu bëree bëri lu mel ni wahabist yi tey tey par exemple am nañ ci ñoo xamante ni boo demee ci seen tool yi wala seen dëkk yi dañ fay gas ay dañ fay gas ay teen dafa def lu nekk ci xamuñ alal jooju fu mu jógee waaye bu ëllëgee alal jooju mooy waral benn conditionnement bi nga xamante ni bi ne mooy am ci suñu diggante ak ñooñu nga xam ne ñooñu doon financé bépp financement buy dañoo war a xool bu baax a baax fa muy jógee ak condition yan la fiy dugge kon bu bii amee tey day doon boo xamante ni moom tamit dañ koy dañ ciy interpellé mboolem population Sénégal muy Sonko bi waaye doonul ne sax boobu rek moo ñu tax a jóg waaye bépp lépp lépp luy Sénégal ci financement dañ ko war a jàngataat xam bu baax a baax fa mu jóge ndaxte gis naa ci mooy li ma wax léegi nii gis naa état bi di ci def liggéey bu am solo lu mel ne seen article 1981 boobu ñu génnewaat li tax ma ànd ci li tax ma koy apprécier surtout sax mooy doonu liggéey boo xamante ni dañoo bàyyi rek ba lii am tey ñu taxaw daan ne dañuy génne luwaa bi kon loolu luy wanee la ne Sénégal mi ngi doon liggéey ci loolu bu baax baax kon nag li am solo tey mooy lan mooy maanaam liggéey booba ñu gën koo dëgëralaat gën a xam loi yi gën a dëgg gën a respecté suñuy loi boo xoolee réew tubaab yi yëpp li leen tax avancé avancement bi ñu am tey lan moo ko waral dañoo respecté seeni i kon Sénégal nañ maase respecte loi yi te maase liggéeyandoo ko loolu nag li tax ñu koy wax ñu mën cee jox exemple mooy ay ndaw lañ fi lañ jànge jàng extérieur xam li xew ci àdduna bi xam condition yi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy respecté seen te ñoom gënuñ ñoo gënuñ ñoo jàng gënuñ ñoo xam li mbir mi waaye lan moo des mooy appliquer loi yi moo tax jikko yi nga xam ne ñoo ne ci tubaab yi wala ñoo ne ci nit ñu weex ñi dañu koy euh, ñu koy jéem a ji ci suñu askan wi loolu euh, jikko yi la yoo xam ne warees na ko mën a jéem a xeex te xeex bi tàmbalewul fenn ci ne li mag ñi di wax sénégalais yi di ko wax waaye ñun ñu xam ko suñu mag ñu naan nit kat bu la joxee ay gët fa neex ngay xool loola gis nañ financement yu jógee extérieur di ñëw suñ biir suñ biir réew mii yoo xamante ne bii ne gis nañ ay école yu ñu fi tabax gis nañ yeneen yeneen te idée boobu ku xoo ku xam jihadiste wala nga xam euh, wahabiste yi seen leen may pouvoir bi tey Sénégal ba tax ñu mën fee am yenn yi li ko waral mooy ay financement yu jóge extérieur yoo xamante bi ni mi ngi wàcc ci suñu biirum réew te ñun léeg-léeg sax duñ ko yëg ndax fa ma war jaar du fa mën a jaar du jaar ndax tey boo xoolee exemple bi ma lay jox bi gën euh, exemple typique bi ma lay jox mooy boo xoolee fu mel ne réewum Arabie Saoudite tey jii am nañ sañ-sañu jël nit sénégalais fii may ko bourse mu dem jàng ci réew mën nañoo def ci moom neex Sénégal amul sañ-sañ ñu jékki-jékki rek may kenn bourse mu ñëw fii kon dañoo waroon a tëralaat condition yooyu teg ko ci lu leer kuy génn Sénégal ñu xam ne fii kat ngay génn ñu teg la ci branche boo xamante ne bii ne comme ñun bu ñu génn Sénégal di jàng extérieur ci réew tubaab bi ñuy condition yi nga xam ne moom la ñuy teg ñu koy tegal ndaxte ñi ngi ñuy yoro suñu askan waaye ñi ñuy changé idée yi nga xam ne moom la suñu askan yor te loolu erreur la bu boo xamante ne bi ne tubaab bi sax bi mu fa amee maa ngi xool yaakaar naa su ma juumul ci date bi bëggu maa wax date exact waaye ñaari at ci gannaaw wala ñett France bi ñu koy tàmbali introduire mooy lu mel ne enseignement sexuel bi ñu bëgg a teel xale bi teel a xam lan moo jëm ci loolu ndax bu ëllëgee mu bañ cee am mbetteel loolu lañ lay loolu lañ loolu lañ layoon waaye mbooleem population français bi nga xam ne moo fa nekk française bi nga xam ne moo nekk France dañoo jugoon di xeex loolu ngir mu bañ a am ndegam réew mu mel ne France nag mooy xeex loolu surtout maag Sénégal gi nga xam ne lépp li fi jiitu mooy ak ak ak ak taalibe ak liggéey ak lu jëmale may contre la loo xamante ni ànduma ci comme ni ko président waxee ci discours bi nee loolu moom <laughs> yaakaar naa li ci li ci président wax leer na naa ñi waaye man wut avant président di wax waxoon naa ci vidéo boo xam ne mi ngi def ci mi ngi ko di di ci gën a inf di ci gën a informer waat li nga xam ne mooy population Sénégal ñu xam ne tamit phénomène la boo xam ne bi ne bu lawee mën naa indi ay jafe-jafe ëllëg ci suñu réew ñëpp nañ jóg contre euh, contre euh, programme boo xam ne nii la mel comme ni ko président defee jóg na contre ko wax ko leeral ko ci discours am euh, à la fin de l'année ni mu ko leeralee ñun ñëpp ñu maasee àndandoo ci loolu te xam ne kat phénomène boobu phénomène la boo xam ne baaxul ci suñu réew waaye baaxul ci suñu gone waaye baaxul ci suñu ëllëg